kon lu am solo tay moy duñu def suñu revue euh, annuelle bi euh, revue euh, conjointe hein, yu nu ngi def xam nga blañu ñu koy def duñu xol xool nun lu nu am mais aussi waxtaan ak entreprise minière yëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo tax ñu wax revue conjointe hein, il faut que nun ñu wax jox suñu xalaat mais tam ñoom itam ñu joxe seen résultat joxe seen xalaat foofu nu ñu essayer donc def benn Euh, euh, programme si euh, programme bi gis nañu ni en tout cas bu nuy def bilan bi am na ay jéego yu ñu def malgré que situation bi xaw na xaw na métti am na ay weer yi xam ni sax duñu duñu tëj Euh, exploitation euh, artisanale moi orpailleur rek yooyu duñu tëj ci affaire or bi mais malgré tout ça nous avons une évolution si euh, production bi gis une évolution une nu am si or bi yu am si zircon bi yu am si phosphate bi projet yi nga xam ni daf koy xool mais am na yeneen projet yoo xam ni bien sûr bokkul si euh, PSE bi mais am tout gis nañu ni am na ay jéego yu am yu am solo yu nu yu nu am xool nañu si euh, euh, jéego yi si projet nu bi am na au moins quatre pour cent yi nga xam ni am na évolution entre daaw ak ak ren si si production yu yu nu am yi. maintenant am na yi nga xam ne aussi war nañu ko gën a xoolaat mooy recommandation yooyu ñu def. am na ñu ko war waroon xoolaat war nañu xool si mbirum or bi eh, nan koy fexe bay eh, eh, export ñu woy expansion artisanale mooy orpailleurs yi yu am yi si région euh, gu ak région Tamba ñu xool lu leen di gën a boole ci liggéey bi ñu gën leen jàppale pour ñu gën a taxaw Euh, lolu amna solo ci proposition yu nu yu nu def yi la war nañu aussi si euh, lu ci def nun du ñoy contrôler ñoy surveiller activité yi il faut que ñu am ay système yu gën a moderne am na xam ne adduna bi dafay dafay évoluer euh, am na yu bëri nga xam ne léegi mën ko def il faut ñun ñu moderniser suñu activité yi xam ni daan mën a def ay ay photo jël ay moyens techniques yi nga xam ne moyens modernes yi pour gën a xam vraiment lan moo am si zone production euh, minière Il bon y a euh, euh, yenn problème yi y a un problème douane la ak problème euh, euh, euh, fiscalité yoyu ministère des finances moko moko yoré ñun ak ministère des finances nag ñoo bokk liggéey bi ñun suñu wax surveillance ñun du liggéey benn partie bi ministère des finances aussi liggéey benn partie bi donc si problème yoyu problème fiscalité nunu am problème ak société boobu mi ngi nekk si tribunal Hein, parce que ñoom dem nañu euh, bay euh, saisir tribunal euh, d'arbitrage ou Paris donc lolo, nous daan dem joxe sunu xalat ñom nee d'accord nu si loolu ñu len redressé nous dan jox sunu xalat lu nu état bi moy ministère des finances ak ak dan nous joxe sunu xalat wax ni pour nous, lolo nous waroon fay ñom nee d'accord nu pour lolo. mais lolo, si si mbirum liggéey bi le le bokk donc ñuy xam ni rek euh, nun en tout cas lu mën nu mën a def état bi lu mën a def pour gën a jàppale pour xaalis bu euh, exploitation minière di euh, di di indi Sénégal gën ci gis boppam loolu aussi moo mooy sunu liggéey moo tax ministère des finances def liggéey boobu moo tax aussi nun ñu jàppale ministère des finances pour vraiment exploitation minière yi jariñ réew mi